alors ñu dugg nag euh, vite fait yi nag fast façon fast track. oui parce que temps euh, euh, temps bee ñu xoj te am na émission bu ñëwaat léegi juste après. alors grand ñëw euh, actualité politique bi actualité politique bi dañ koy dooree man man man man j'ai envie ma dooree ko tuuti vite fait ci. euh, la ma doon jeexaleeg Doudou Coulibaly mooy le le le mm. cas Ayib Daffé Euh, ak surtout affaire euh, DGE Sénat euh, cour de justice CEDEAO gis nga keroog démb loon je pense xaw ma mm-hmm. avant-hier na mu demee audition ba les avocats de mm-hmm. les avocats de l'État mm-hmm. ak même l'AGE mooy agent judiciaire de l'État quand même il voulait nous retenir audience parce que n'étaient n'était pas dans les dispositions euh, de débattre dans le fond mais ça a été rejeté. Mm-hmm. après après euh, ils ont été raillés partout mais tout euh, toute cette affaire là de avec la justice et puis on a au milieu de tout ça on a un Haïb Dafé qui chaque matin. Euh, euh, amat la presse. Mm-hmm. dem Sénat avant DGE la woon. Mm-hmm. léegi mi ngi jaabante Sénat. Mm-hmm. Euh, maintenant si man méli-mélo boobu grand loolu ci mën a wax. non xam nga man soxna Aïssatou Olof Ndiaye dafa naan xoolum tànn jégg na meddu melentaan dafa am loo xam ne nii débat bu ñuy réduire ci benn corset bu ñuy nekk di analyser day jafe ñu dugg ci. xam nga affaire droit bu xasee ba dugg rek. affaire spécialité dafay dugg. te taskatu xibaar bi parfois du magistrat. du avocat amul les outils conceptuels. absolument bu ñu waxantee dëgg rek. pour mën a délibérer. ci yenn yenn domaines yi. du noonu. fii toujours man damaa jàpp ne rek. Euh, li journaliste bi mën mooy constater. ah ay dafay kat déposé na. Euh, DGE kat bañ na. Mais après il politique a Sénat Doudou Ndir na que que ko parce que ce que je veux bëgg a wax ñun ping pong bi finalité bi ñu y a ñor ak cause yi lu politico judiciaire lañ wax feuilleton dama bu feuilleton politico judiciaire vous dindi le trait d'union il y a un connecteur logique voilà entre politique et justice mhm. waaw ce la moo la justice ci politique wala lu dugal politique ci justice ñu dellu ci coslaay ga dañuy waxante dëgg rek parce que lii ay affaire stratégie ak stratégie ay avocat la moom laa la wax loolu seen domaine la ñoom léegi domaine boobu boo ci duggee dafa yaatu kii dafay lal kee lal yi waaw lu waaye acc rek kenn ajji ko lu laay làq ci ron lal bi kenn ron nu xool lan la léegi ñun foofu mënuñ leen fa topp il faut ñu def ndànk rek ba cappaandaw ko ñu xool pour xam daal pour se faire illusion parce que boo xoolee ku ci réeru wax ma ku ci réeru rek li xew nii. Mhm. ku ko comprendre ti léegi. foofu la ñuy mujj. man ci cosaay ga moo tax du ci yii di wër nii producteur oo. Mhm. xool xamuñ ci dara. Mhm. parce que fii pour man affaire bi c' est politique. la politique dans un feuilleton politico-judiciaire la politique est au début et à la fin.